حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لقد انقسم الناس بعد رمضان إلى أقسام الصنف الأول قوم كانوا على خير وطاعة فلما جاء رمضان شمروا على سواعدهم وضاعفوا من جهودهم وجعلوا الرمضان غنيمة ربانية وجعلوا رمضان غنيمة ربانية ومنحة إلهية استكثروا من الخيرات وتعرضوا للرحمن وتداركوا ما فات فلعل الله أن تكون قد أصابتهم نفحة من النفحات فلما انقضى رمضان إلا وقد حصلوا زادا عظيما أدلت رتبتهم عند الله وزادت درجتهم في الجنان وابتعدوا عن النيران علموا أن لا مستراح لهم إلا تحت شجرة الطوبى فأتعبوا هذه النفوس في الطاعات علموا أن الصالحات ليست حكرا على الرمضان فلا تراهم إلا صواما قواما حافظوا على الصيام الست في الصوال حافظوا على الصيام الاثنين والخميس والأيام البيض دمعتهم على خضودهم في جوف الليل وعند الأسهار استغفروا أشدا من استغفار أهل الأزور bokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ci waxtu yi ñu toll ci bëccëg yi yu barkeel te sell ànd ak ay guddeem doomu aadama yi dinañ ci séddalewu ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi ay nit lañ yoo xam ne ci mbaax lañ nekkoon ak topp yàlla ci la ñuy continuer bi weeru koor ñëwee fekkoon leen ci mbaax ak topp yàlla ñu daal di ci sax continuer ci bal yamuñ ci sax ci sax waaye buñ doon def benn dañoo doubler def ñaar buñ leen doon def ñaar dañoo doubler def ñett wa daafu min juhudihim wa jaalu ramadan ganimatan rabbaniya bépp effort buñ doon def ci weeru koor avant weeru koor ñoom groupe bu njëkk bi dañoo double effort yooyu ndax xam ne ci jamono joo xam ne jamono yi njëkkante tiyaaba lañu nekk ak jamono yi jege yàlla ñu daal di bëri lu baax liñ doon def ñoom groupe bu njëkk bi ñu gaaral seen bopp ci kanamu yàlla tabaraka wa taala ñu jéem a dabaatal lépp lu leen rawoon démb ci lu baax luñ deful woon tey ci weeru koor groupe bu njëkk bi dabaatal nañ ko ñu xam ne moment yi mooy moment dabaatal su la ramadan rawee dootoo dabaatal li nga weesu woon ñoom ñii groupe bu njëkk bi bu ñu demee ba weeru koor di jeex da ngay gis ñoom ñu am yóbbal buñ doon yóbbaale ñu am zaat ñu am taraanga bu rëy bu màgg ci kanamu yàlla tabaraka wa taala yàlla tabaraka wa taala dencal leen ay daraja yu mag ay place yu kawe fa moom allahu subhanahu wa taala ixwatal iman groupe bu njëkk bi mooy ñi dolleeku jege yàlla waaye daa di sori safara ak cheytaan lu tax ndax xam nañ ne seen bakkan munta noppalu ci garab googu yàlla naan tuubaa ci keppaaram munuñ cee noppalu lu dul ñu sonn ci jaamu yàlla moo tax fa atabu hazihi nufus fi taat ñu poñe seeni bakkan ñoom groupe bu njëkk bi poñe bakkan yi sonn loo ko woor loo ko jàngloo ko alquran zikruloo ko tuddloo ko yàlla waaye fanaan guddi di ko naafila ba bët set ñoom groupe bu njëkk bi xam nañ ne am tiyaaba du weeru koor kese waaye ba ñu xamee ne at bi yëpp bëccëg bi yëpp weer bi yëpp bis yëpp minute yëpp seconde yëpp da nga war a am tiyaaba moo tax bi weeru koor feeñee seen kanam ñu woor ko ànd ak ay naafilam ñoom groupe bu njëkk bi weeru koor a ngi leen di tàggu waaye du ñu yem mukk ñoom groupe bu njëkk bi ci wooru koor kese danañu woor sitte sawaal bu koor gi jeexee danañu woor lundi ak jeudi bu koor gi jeexee danañu woor ñetti fan ci weeru calendrier musulman muy ayaamul biib le 13 la 14 la 15 ndax ñi jàpp ñu ne weeru koor ba weeru koor lañ war a jaamu yàlla ñoom groupe bu njëkk bi ñoom groupe bu njëkk bi tuur nañu seeni rongoñ ci seeni lex ci xaaju guddi ñuy sujjóot di jooy ci ay njël dañuy toog di sàbbaal yàlla di ko bakk ba bët set kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashaari hum yastaghfiruun ñoom gaa yu njëkk yooyu groupe bu njëkk bi sonn nañ ci julli guddi sonn ci jéggalu seen boroom ci njël lu raw ñi ay ameyoon ay bàkkaar nañ doon jéggalu ñoom ñi nga xam ne amuñu benn bàkkaar ñoom ñoo gën a sonn sax ci jéggalu ñi am bàkkaar yaisuuna bayna alxawfi walraja kama qaala allahu jalla wa ala fi muhkami tanzil ñoom groupe bu njëkk bi dañoo dund weeru koor diggante yaakaar ak xemmem ragal ak xemmem ñu ngi woor di julli di jàng alquran di tudd yàlla ba pare di ñaan yàlla naan eh yow yàlla yal na nu nangul wala ñu ngi def lu baax ba pare ñu ngi tiit di ñaan yàlla naan yàlla nangul nu mbokk yi ñoom groupe bu njëkk bi dañoo jëfe wax ji nga xam ne yàlla wax na ko ci alquran wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila wa annahum ila rabbihim raji'un wallazina yu'tuna ma ataw ñi nga xam ne dañuy joxe ñi nga xam ne dañuy def li leen yàlla sant jamono juñ koy def wa qulubuhum wajila seen xol yaa ngi rëngi rëngi seen xol yaa ngi yëngu dënn yi di riir ndax ñun kat lii yàlla nangul na ko wala yàlla nangulu na ko lu tax ñoom groupe bu njëkk bi dañoo xam ne annahum ila rabbihim raji'un lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg lu mu métti métti métti métti métti danañ leen laxas delloo ci yàlla tabaraka wa taala moo tax xaaru yi ñu leen di yóbbu ci yàlla ñoom dañoo yóbbu ci seen bopp ci yàlla balaa ñuy dee ñëw na ci sunan ci hadisu sunu yaay Aïcha radiyallahu anha قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقالت يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويسربون القمر ولا يخافون من الله واو ñi yàlla wax ci aaya bi yow yonent Aïcha mooy laaj ñii xanaa mooy sàcc yi ñii xanaa mooy njaalookat yi ñii xanaa mooy naankatu sàngari ñii xanaa ñooy ñi ragalul yàlla yaa Aïcha ne ko déedéet laa fa qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne Aïcha laa yaa yabna yabna saddiq yab yaa bintu saddiq déedéet yow doomu xaritu yàlla bi yow doomu ku dëggu ki déedéet ñii walakinnahum aqwamun yusalluun wa yasuumuun ويتصدقون ويخافون أن يرد الله عليهم ذلك الله أكبر ndeke ñii yàlla di wax ca alquran allazina yutuna ma ataw dañuy def li leen yàlla sant ba pare xol yi tiit mooy ñi nga xam ne dañuy julli du ñu sàcc de du ñu naan sàngara ñii mooy ñi nga xam ne dañuy julli di woor di saraxe ragal yàlla waaye dañoo ragal ndeysaan seen julli yàlla du ko jël dañuy julli ba sonn yàlla ne leen jël leen baaxul dañuy woor ba koor gi jeex yàlla ne leen jël leen baaxul dañuy aji màkk yàlla ne leen jël leen baaxul dañuy saraxe yàlla ne leen jël leen baaxul moo tax ñoom bu ñu koy def dañuy tiit di ñaan yàlla yow yàlla yàlla na ko nangul bu ngeen mënee puus jegale sàpp yi ndax ñi ci biti dugg asamaan si moo neexul bu ngeen mënee puus yéen ñi ci biir ak ñi ci kaw su ngeen mu ne puus jegalante sàpp yi ngeen ubbi bunt yi ñi ci biir si daal di dugg mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala groupe gi mooy groupe gi nga xam ne ñi ngi jaamu yàlla waaye ñi ngi ragal ne yàlla nangulu leen ñi ngi julli ñi ngi woor ñi ngi saraxe waaye ñi ngi ragal yooyu yëpp yàlla buub ko delloo leen ne leen baaxul ni ngeen ko defee baaxul soxla wu ma ko فهؤلاء هم ال... فهؤلاء هم المقبولون ني لا يالا نانغول هؤلاء هم السابقون ني نيو ني جيتو هؤلاء الذين اتت رقابهم وبيلت صحائفهم ñi ñooy ñi nga xam ne ñooy jiitu ci yàlla ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo goreel humul lazina utiqat riqaabuhum min annaar ñi ñooy ñi goreel seen bopp ci safara ñii ñooy ñi yàlla weexal seen kanam fa tuuba thumma tuuba lahum ñii day kër googu ak garab googu tudd aljanna tudd tuuba ñeel na leen ñu ñooy groupe bu njëkk bi ñu xool ndax ñun ci groupe bii lañ bokk wala groupe bu ñaareel lañ bokk asinfu saani groupe bu ñaareel qawman kaanu qabla ramadan fi xafla wa sahwin wa laibin falamma aqbala ramadan aqbalu ala taati wal ibada groupe ñaareel ay nit lañ yoo xam ne balaa weeru koor ñëw ay caaxaankat lañ woon ay fokkat lañ woon ay moykatu yàlla lañ woon bi weeru koor duggee ñu bàyyi loolu yépp jublu yàlla tabaraka wa taala ñu bàyyi loolu yépp ngir màggal jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu saamu wa qaamu ñu woor bëccëg yi taxaw guddi yi qara'ul qur'an ñu jàng alqur'an wa tasaddaqu ñu saraxe wa damaat uyunuhum seeni rongoñ tuuru wa xashaat qulubuhum seeni dëgg dëng yëngatu ngir ragal yàlla walakin waaye mbokk yi waaye waaye lamma an walla ramadan bi weeru koor di waaj a jeex hatta aadu ma kaanu alayhi delluwaat nañ ci seeni caaxaan delluwaat nañ ci mooy yàlla ya delluwaat nañ ca bàkkaar ya delluwaat nañ ca caaxaan ya aadu delluwaat nañ ila ma kaanu alayhi ca lañ nekkoon aadu ila xaflatihim delluwaat nañ ci seen caaxaan aadu ila zunubihim delluwaat nañ ci seeni bakkaar fa haulaai naqulu lahum ñii ñu ngi leen di wax man kaana yabudu ramadan fa inna ramadan qad maat wa man kaana yabudu allah fa inna allaha hayyun la yamut yow mi doon jaamu weeru koor jaamu woon yàlla mais weeru koor nga doon jaamu moo taxoon ngay julli fajar jàkk parce que jamono xëdd moo taxoon nga ragal tëdd bañ a julli fajar nga dem julli ji fajar yow mi doon déglu alquran tafsir ndax weeru koor moo tax yow mi daan saraxe ndax weeru koor moo tax yow mi daan jàng alquran ndax weeru koor moo tax yow mi jigéen ji daan muur sa awra parce que weeru koor moo tax weeru koor a ngi dee sa boroom a ngi dee yàlla ji nga doon jaamu mi ngi dee su deewee sa jaamu yàlla yàqu waaye yow mi doon jaamu yàlla fa inna allaha hayyun laa yamuut yow mi doon jaamu yàlla kese daan sellal na nga yëg ne yàlla moomu day dund te du dee wallahi mbokk yi ñii an allazi amarak xanaa xamuloo yow moomu yow bi bokk ci ñaareelu groupe bi delluwaat ci caaxaan xanaa xamuloo ki la santoon jaamu yàlla ki la santoon ngay woor huwa allazi amaraka biha fi gayri ramadan mooy ki la ko santoon bu weeru koor ñëwul yàlla mi doon jaamu ci yeneen weer yu dul weeru koor ndax yàlla boobu dafay jóge beneen yàlla ñëw remplacé ko yàlla mi taxoon ñu doon julli balaa weeru koor ñëw yàlla moom moo ñu sant nañ julli ci weeru koor yàlla biñ daan jaamu yàlla moomu ba tey moom la ñuy jaamu ci weeru koor kon lu tax nga jaamu yàlla ci weeru koor koor jeex nga delluwaat yaa man yaa man utta ila zunub wa asayta wa gafalt tamahal qalilan tafakkar qalilan ee yow mi delluwaat ci ay bakkaar ee yow mi delluwaat ci mooy yàlla yow mi delluwaat ci caaxaan ngalawaay ndànkul defal ndànk xalaatal bu baax kayfa taudu ila sayiat nooy delluwaat ci ay bakkaar wa rubama qad taharaka allahu anha xanaa xamuloo ne yàlla sang na la ba nga set yàlla fóot na la ba nga set yàlla jëggal na la say bakkaar nga bëgg a delluwaat ci ay tilim tilim di ko sangoo kenn ci ñun toog fii bu sangoon doomam ba mu set mu solal ko yére yu set xale bi dellu di bërëngu ci suuf si nu mu koy def question bi kenn ku nekk na nga ko tontu ci sa dënn soo amoon doom nga sang ko ba mu set nga solal ko yére yu weex tal nga dellu gis ko muy bërëngu ci suuf doom jooju bu doon sa doom yow noo koy def ee yow mi yàlla sang ci weeru koor yow mi yàlla laabal ci weeru koor yow mi jublu yàlla ci weeru koor dara deful yàlla di la takkal diipal mu taqwa nga daal di bàyyiwaat yàlla delluwaat ci seytaan mbokk yi kayfa taudu ila sayiat nooy delloowaat ci ay bakkaar wa rubbama qad taharaka allahu minha xanaa xamuloo ni amaana yàlla laabal na la ba pare bul delluwaat ginnaaw ba mu la sangee kayfa taudu ila almaasi wa rubbama mahaha allahu min sahahatik naka ngay delloowaat ci ay bakkaar xanaa xamuloo ne sa këyit sa këyit bi nga daan jëf te ëllëg yowmal xiyaam ñu war la joxe këyit googu sa loxo ndey joor xanaa xamuloo ne yàlla laabal na këyit gi ba pare nga bugg ko tilimalaatal yaa abdallah a yutqiku allahu min annaar fa taudu ilayha ee yow jaamu yàlla bi yàlla dalay goreel ci safara ba pare ne la goreel naa la nga delluwaat ne ko goreewu ma foog ma dugg safara la ilaha illa allah am na ci jaamu yàlla yoo xam ne wallahi lazi la ilaha illa huwa yàlla dana leen laabal ba ñu laab yàlla ne leen yéen goreel naa leen ci safara itq min an naar nga dégg ñu ne yàlla man damay dugg safara fal force la ilaha illa allah man yàlla damay dugg safara safara moo ma gënal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ayuttiquka allahu min annar fa taudu ilayha ndax yàlla dalay goreel ba pare nga delluwaat abyad allahu sahafatika min al awzar wa anta tusawiduha maratan uxra yàlla fóot la raxas say këyit ba mu set nga lànk ne man yàlla damay tilim damay delluwaat def ay bàkkaar parce que weeru koor la woon weeru koor jeex na yaa abdallah yaa amatallah ee yow jaamu yàlla bu góor bi ee yow jaamu yàlla bu jigéen bi ah law tadri anna musib ay musibatin waqata biha fiha est ce que xam nga musiba bi nga dugg musiba gënta rëy ci weeru koor buur bu toll ne yàlla ne la baal naa la jéggal naa la nga ne ko ma lànk bul ma baal bul ma jéggal aljanna moom damay dugg fal force duma la jaamu te dinaa dugg aljanna duma la topp te dinaa dugg aljanna duma woor te dinaa dugg aljanna yaa abdallah atadri ay musibatin waqata fiha est ce que xam nga ban musiba nga soobu est ce que xam nga ban yoon nga jaar law tadri ayu bala'in nazala bik boo xamoon musiba bi nar a wàcc ci sa kaw boo xamoon changement bi nga changé jóge nga ci jege yàlla yaa ngi jëm ci sori yàlla jóge nga ci jege yàlla foo jëm yaa ngi soobu yoonu sori yàlla te ku jóge ci yoonu jege yàlla soobu yoonu sori yàlla kooku jahannama lay fanaani kenn mun ta fexe ba du dugg jahannam yaa abdallah iyaaka an takuna kallati naqadat xazlaha min baadi quwatiha ankaatha kenn ci ñun buñ ko jëndaloon oto bu rafet jox ko permis jox ko caabi ji ne ko bismillah mu jël kuur di tojote oto bi kooku soo ko rombee loo koy wax ku nekk tontu ko ci sa dënn fi nga toog koo jëndaloon écran télévision écran grand géant écran bu mag nga monteel ko antenne parabole cinquante cinq scènes mu jël kuur dóor ci kooku loo koy wax tontu loolu ci sa dënn fi nga toog kooku mooy ki woor ba koor jeex mu delluwaat ci stade yi di seetaan làmb kooku mooy ki woor ba koor jeex mu delluwaat ci stade di seetaan di football kooku mooy ki woor ba koor jeex mu toog ci kanamu écran géant di seetaan film porno kooku mooy ki woor ba koor jeex mu delluwaat samp ay kaskam ci ay noppam di déglu musique kookoy ki woor ba koor jeex mu delluwaat di njaaloo kooku mooy ki woor ba koor jeex mu delluwaat ci baar yi naan sàngara kookoy ki woor ba koor jeex mu delluwaat di tux cigarette ginnaaw ba ko yàlla laabalee ginnaaw ba ko yàlla setalee ginnaaw ba ko yàlla sangee mu delluwaat ci ay caaxaanam mbokk yi yaa abdallah yaa abdallah yaa abdallah iyaaka an takuna kallati naqadat xaslaha min baadi quwatin ankaasa laa tahdim ma banayt yow jaamu yàlla bi bul màbb li nga daaneel tabax bi tabax nga ko ba pare gas nga fondement yi ba teg biri bi ba yëkkati ko wallahi boo ko daanaa la te alku nga laa tahdim ma banayt wala tusawwit ma bay ma badayt ma bayat bul daaneel miir bi bul weexal bul ñuulalaat li ñu weexal ba pare bul ko ñuulalaat miir bi penti nañ ko ba mu weex bul ko ñuulalaat yàlla sang na la ba nga set bul delluwaat ci ay bakkaar laa tadri mata tughadiru dunya est ce que xam nga kañ ngay génn àdduna fahzar fahzar ya abdallah fahzari ya amatallah yow jaamu yàlla bu góor bi moytul yow jaamu yàlla bu jigéen bi moytul laa tadri mata tamuut laa tadri mata tughadiru dunya fahzari an ta'tika maniya wa anta qad utta ila az-zunub wal ma'asi wa tazakkar inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ngir yàlla bul delluwaat ay caaxaan mooy tandikul mooy tandikul bu la malakal mawti di dikkal fekk yaa ngi ci caay-caay mooy tandikul bu la malakal mawti di dikkal fekk yaa ngi ci musique fekk yaa ngi ci sangara fekk yaa ngi ci njaaloo fekk yaa ngi ci soirée fekk yaa ngi ci baar fekk yaa ngi ci stade mooy tandikul al mawtu yati bagdatan wal qabru sunduqul amal dee buy ñëw day bette te bàmmeel mooy armoire bi ñuy denc jëf ju baax doomu aadama ñaar la am armoire armeel armoire yére yu ñu fóot yére yu ñu paase yére yu ñu gome yére yu ñu daakaande yére yu ñu parfum moom ngay def ci armoire bi armeel jëf ju baax yatbau lmayit salaas wa yarjasnaani wa yabqa waahid ku dee ñett lay gunge ñaar ñi ñibbi nga continuer kenn yaa abdallah fàttalikul mooy tandikul balaa malakal mawti di la jël si fekk yaa ngi fees dell ak bakkaar yow jaamu yàlla bu góor ak bu jigéen fàttalikul wax ji yàlla wax ne inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla nee na duma changé ay nit lu dul ñoom ñooy changé seen bopp ku changé wul sa bopp yàlla du la changé ñu ngi ci weeru changement mu ngi waaj a jeex ñun ñi nga xam ne jotoon nañoo changé jëm ci lu baax ngalawaay nañ ci lang ngalawaay nañ ci sax waabud rabbaka hatta yatiyaka alyaqin jaamul yàlla ba dee fekk la ci fa gayir min xaalik utriki zunub aqbil ala rabbika hatta yaqbalu llahu alayk mbokk yi ci yàlla nañu bàyyi ay bakkaar nañu jublu yàlla tabaraka wa taala ndax yàlla jublu ci ñun mbokk yi ñetteelu kuréel assinfu saalis assinfu saalis kuréel bu njëkk bi dem na ñaareelu kuréel ñoo ci tegu bi mooy ñetteelu kuréel kenn ku nekk fi nga toog xoolal ñaar yi passé ban nga ci bokk ñetteelu kuréel baa ngi nii qawmun daxala ramadan wa xaraja ramadan wa xaaluhum ka xaalihim lam yataxayyar minhu shay troisième groupe weeru koor ñëw na dund nañ ko ba mu jaax yokk wuñ ci lu toll ne tarfat la ay amul lu leen yoru koor weeru koor jëriñ ndax avant weeru koor xamuñu woon yàlla weeru koor ñëw na xamuñu yàlla dara changé wul ci seen programme ña ngay tux ña ngay fecc ña ngay dangal ña ngay kiris karas ña ngay check down ña ngay paccal ña ngay dangal dara weeru koor dara la leen mënul lu tax summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijaara aw asadu qaswa seen xol yi ñoo blende xol yee dee moo tax mënuñu xam yàlla moo tax weeru koor dara la leen mënalul ka lu tax kalla barraana ala qulubihim maa kaanu yaksibuun seen xol yi ñoo waw xol yee xomaat xol yee dee waaraate sax mënatulu leen dara moo tax weeru koor dara leen mënalul lam yugayir minhum shay walam yatabaddal min amrihim shay seen mbir dara changé wu ci bal rubbama zaadat asaamuhum au contraire sax au contraire dañoo gën a yokk ay bàkkaar dañoo yokk ndax kenn ci ñoom day génn pour wane ne man faalewuma yàlla faalewuma kenn nga dëkk mu naan defal ma ñeenti kaas ma ndékki ak ñeenti kilo mburu defal ma palaatu ginaar ma ndékk ma añ jox ma paquet de cigarette allahuma arina alxaqan allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala ittibaai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinaabi allahuma yaa musabbitul qulub sabbit qulubana ala taatik xutba bi du mën a yegg ndax taw bi moo tax ñu dagg ko insha allah ñu xajal mbokk yi ñu dugg si ci kaw ak ci suuf ñu xajal mbokk yi dugg ci aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa qumu ila salatikum yarhamukum allah ñu jegeel sàppe yi na am ñu dugg si ci biir ñu jegelante sàppe yi